jërë jëf mbokk yi ñu topp ci Info 7 TV dal leen ak jàmm ñu daal di wax ci xabaar bi lee soxal kile di Adji Sarr moom Adji saar moomee nag ay waxtu képp des ngir mu amal confrontation diggam ak kii di Ousmane Sonko loolu nag jëm ci ay tuuma lu jëm ci wàllum sàkku di viol yi nga xam ne tegoon na ko ci kaw njiitu parti Pastef di Ousmane Sonko moom Adji Sarr moomee nag tey jile ñu daal di ko gis ca place de souvenir mu demoon rek ngir fekke ji cérémonie bu ñii di ay femmes activistes doon amal ngir rek daal di xeex lii di fitna yi nga xam ne dañ koy fitnaal lii di jigéen ñi fii ci Sénégal ginnaaw lu jëm ci boobu boobule cérémonie nag kile di Adji saar daal di woon koo teewee niki tey jile ci ngoon gi ci altina gi àndoon ak kile di soxna Gabriel Kane moom moomee di Adji Sarr nag suba bu 10 jote ci talaata gi yem ak juróom benn fan ci wérum décembre la leen kii di doyen de si Omar Maham daal di woolu foofa ca tribunal bu Dakar ngir déglu leen moom mii di aji nag tey jilee daal dinañ ko gis foofa ca place de souvenir ba tey sax ci xabaar ñu nga xam ne moom aji saar moome de niki weekend bi ñu génn di samedi ak dimanche mu ngi ko amal fa nga xam ne moo ci île di jàpp fa nga xam ne mooy Jirnda ak foofe di Ndangaan Samb ngir rek daal di woon seeti ñii di ak njabootam moom nag démbul daal di dellu ci ci Ndakaaru tey nag ñu gis ko foofu ca place de souvenir mu daal di fa nekk moom ak ñii di soxna yi nga xam ne dañ doon amal ab cérémonie jëm ci xeex ak lii di fitna yi nga xam ne dañ koy teg ci jigéen ñi moom nag suba ak jàmm la war a jeno ak njiitu parti Pastef lu jëm ci tuumay viol yi nga xam ne daa doon na ko tuumal ca atum 2021 mois de février jàpp mars ni ki suba ak jàmm nag kii di Omar Maham Diallo dina leen déglu bu 10 heures jotee foofu ca bureau bu doyen des juges ca tribunal bu Ndakaaru dinañ ci dellu ci waat topp ko ni mu gën a yaatoo jër ngeen jëf woy leen di ñu topp fii ci Info 7 TV lépp luy xabaar bit réew ak biti réew da ngeen ko am waaye ngeen wéy di abonné di bës li la di cloche de notification bi ndax ngeen mën di jot suñuy xabaar saa su ne jërë ngeen jëf